di gërëm nag di félicité Adja Aminta mi nga xam ni nag cër bi moo ko moomoon ak tan dindi cër bi bàyyee ma ko kon kooku gor la gor moom bu yeggee foofu rek fa lay yem. maa ngi di ñëpp góor a jigéen mag ak ndaw ñëpp laa félicité amul ku ma bàyyi ñi def bulletin noir blanc ñi wote sama faveur ñëpp laa gërëm sant ñëpp di invité population Ross Béthio yëpp.

programme boobu mu défilé woon incha allah dès mercredi daf ciy commencé ba ku ñëw fekk ka si xam nga ni moos Ross Béthio lu fi nekk di programme di sémb pour mu jëm kanam xam na nanu ko rëdd na ko prioriser na ko te incha allah si la ñuy jublu pour mën ko réaliser. sant yàlla rek ni alhamdulilah ndax lii lépp dafa nekk un surplus rek ndax dès l'instant que ñun on était investi nekk conseil municipal. déjà lolo ça nous suffisait texte vraiment nit ñi am yaakaar dem ba ñu mettre en place ben bureau boole nu ci def na le deuxième adjoint au maire kon dañuy gëna a yalla yàlla te di wax rek c'est une charge encore charge la bo xamné dañu nane bisimilahi rahmaani rahim di ñaan yalla mu àggaleel nu bañ ni alhamdulilahi rabil alamin ndax xamnañu les les défis qui nous attend xamnañu li ñuy xaar devant kon Omar lolu sant yalla lañ ci def rek mais charge la te aussi engagement doit daf motiver pour li ñu bëgg def bëgg réaliser li bëgg def pour respecter avec cette population là ñu am les possibilités de la faire kon vraiment le but de pouvoir faire rek la ko mën mais ak charge de la inshallah Inch'Allah, nous avons ba mériter maintenant c'est le conseil municipal Les luy botte de compter les luy adversité les luy da fay jeex ci conseil le ndax maire loolu la woté les gens nañu tous les fils de Rosbet. on fait appel à tout le monde pour nous liguer Rosbet. appel je crois que d'ici quelque temps Rosbet peut nous soutenir ñu ci appel Nous ndax dañuy def pour Ross defuñu pour suñu puisque dañuy def pour Ross cet appel là nit de plus en plus dans dégg nous allons Inch'Allah, pour 5 ans pour transformer cette ville positivement di sant sama les jigéen yi ma àndal yëpp nag di wane été écharpe bi ma ak adjoint bi ma nek tay du pour man pour jigen ni Ross Béthio yep la di ci gërem suma naataangu jigen yi ma andal yep nak ku ci mel ni nga xamne ne taxawon na pour del premier ñu dindi ko tek ma fi mu taxawat bayine ne bu ma soxla rek day dal di bàyyi ma egsi ba ci mu andi ci man ak mbolo jigen yep nak ma leen di sante di leen di Santo di sante wa Ross yep nak di xam le ne li ñu rango tay nek na la nga xamne ne dañ ñu ko tek fi ci mbolo mais pour mbolo bi yep la écharpe cons kii bii adjointe bii pour jigéen ñi Ross Béthio yëpp la li ñu war nag ak li ne ci suñ kanam xam nañu ko gunge suñu maire ñu commencé léegi liggéey amul taxaw amul taxawaalu comme ni mu ko waxee ndax li mu sumb ak li mu yéene ci Ross Béthio dafa rëy kon warul xaar warul nekk dara dañu war a yël rek accéléré dem ak moom maa ngi koy sant di woowaa Ross Béthio di góor di jigéen di mag ak ndaw personne ressource yeeg ñi liggéey ak ñi toog ñi ci kër gi yëpp nañu ñëw jàpp ci jàppale ko mu liggéey jëmee Ross Béthio kanam ba balaa ñetti at ku dugg si Ross Béthio ne est-ce que kii Ross Béthio la di sant nag bu baax chef de l'État président Macky Sall moom mi am xam ne dafa jox jigéen gëdd teral jigéen màggal jigéen ba wane nañ doxal parité bi normal fu ñu teg góor nañ teg jigéen be ci conseil rek ci lu mu munti doon rek ba ci réunion yi sax fu jigéen toog na fa góor toog kon suñu président ñu ngi koy ñaanal di ko sant di ko gërëm di ko gën a ñaanal mu yàgg fi te li mu sumb mu mun ko eggal li suñu njiglaay la ndax gis nañ ni mu commencé ñu ngi nii mosuñu am coupe te gagné nañu coupe bi am nañu teer bi am nañu Ila Touba am nañu pétrole am nañu gaz lépp ci njiglaayam ñu ngi koy ñaanal ak ak Faly Seck mii ñu ànd nga xam ne dañ ko installé tey coupe bi ñëw tey Sénégal ñu ngi leen di sant di leen di gërëm.